gan sëriñ Bamba si yéenetum àdduna salaamaaleykum waa senegaal tey ji ci àjjuma ji nag euh, man Basirou euh, maa ñëw di leen nuyuwaat te di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sëriñ Mountakha sunu xalifa yàlla yàggal ko fi ba lim yéenee liggéeyal maam ji Cheikhul Xaddim mu defe ko ni mu ko soobee di ñaanal ñëpp jàmm nag di wax ni ñu ngi ci émission bi 24 euh, actu télé bi nga xam ne moom la askan wi taamu nit ñi bëggal ko seen bopp macha allah di ko seetaan muy 24 actu ma ci def émission yi mucc ayib ci ajuma ji euh, dalal ci ndaanaan nag dalal ci macha allah doom bur géwal dalal ci xale bu yaru bu mën a jàng bu am talent ñu koy wax Serigne Cheikh Demba xasaayit macha allah di ko baax di ko yaru bu ko defee dañ koy jox rek mu daal di nuyoo Serigne Cheikh Demba. maaleykum wa rahmatullah maa ngi ziar bu baax ki nga xam ni mooy suñ xalifa général Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla guddal fanam ci barkeb Serigne Touba ginnaaw doolu it ñu ngi ziar bu baax suñu ñaari wayjur muy sëñ Mame Balla sekk ak soxna Ngoone Guèye di leen ñaanal bu baax yàlla yàggal leen fi suñ kanam ci barkeb Serigne Touba tey it ziar bu baax ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi mais liggéeyu Serigne Touba bi ñu ànd di ko liggéey ñoom it may ñaan sunu ànd yàgg ci barke Serigne Touba te seytaane bañ cee man dara ci barke borom Touba. jërëjëf Serigne Cheikh Demba kàddu yi rafet na nuyoo bi rafet na kon bu ko defee tey nag euh, Serigne Cheikh Demba Seck ngeen fi am xasida macha allah di xale bu am talent kon bu ko defee dañuy bàyyi rek. Serigne Cheikh nga daan ñuy rajasal tuuti yëkkati ñu ay bayit ñu nuyoo ko bala ñoo jàll ci leneen bisimilah. rabbi bima yasrahul azana xaat fajaa bijaahi afdali man لله قد لجاء ربي بما يزرعه الأذان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء وزاريا يومان رزاتيا ملا محمد صلاة الله في أبد عليه في حزبه كله شريك له عدو إله الذي عمت مواهبه لجملة الخلق من يدار من برا نجيت جلال ومن وكرمني تكريما وكل لي من لخن بريا رحمن واب لجميع الخلق رحمة مي يغني عني شر من قرآنه خراء قدوم مدى المزاوى عن كل مفسدات ولترحم القلقايا من جاد بداء يا مالك الملك يا من جعل عن خلاد ارحم جميع الورى يا هاديا رداء يا مالك الملك يا من جعل الخوادم ارحم جميع الورى يا عاديا رداء محوت ما خدناه والخلب من ضرار bijaahi afdali man lillaahi xaar la jaa mahu tamaaxanaa والقلب من ضرار بجاه أفضل من لله خاد لجا معوت ما خدناها والقلب من ضرار بجاه أفضل من لله خاد لجا subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin ah sëriñ Cheikh Demba Seck xasida yi leer nañ macha allah mbind mi ni ko sëñ Tuubaa bindee wax nga ko noonu béy di macha allah léegi xale léegi li ñu xewal mooy njàng mi maanaam mën nañu ñëw rek bëlëf bëlëfee xasida yi waaye déedéet da nga ko waxee nu leer macha allah kàddu yi leer na jàng bi leer na ni nga ko waxee leer na kon sëriñ Cheikh yow avant ngay dugg ci jàng. avant nga koy commencé lan nga njëkkee maanaam lan nga njëkk def ci sa àdduna avant ngay dugg ci mbirum xasida waaw man nag euh, li ma njëkk a def mooy jàng jàng jàng daara boobu laa njëkk a def waaw nekk ci daara ji daara ji nuy wax euh, daara ji làmpaloo foofu laa daan jànge ma fi jógee après laa commencé jàng école école arabe école arabe di jàngee tokkoor ba waaw foofu daal lañ commencé sunum njàng moom ci wàllu xam-xam waaw. ah Serigne Cheikh macha allah kàddu yi rafet na foofu euh, jàng nga daara dem nga école Serigne Cheikh macha allah tokkoor ba léegi bi nga jógee ci loolu lan ci nga duggaat da ngaa def da ngaa dal ci liggéey commerce wala diggante bi lan nga defaat maanaam jàng bi daf laa dikkal wala da nga koo dondu say maam wala nu mu demee noonu. waaw bi ma bi ma jógee ci njàng mi nag liggéey laa commencé di liggéey imprimerie imprimerie waaw njàng mi nag moom moom moom dañ ci am ab cër ndax suñuy maam dañ ko daan def sama yaay way juróom bu góor da daan jàng sama baay tamit way juróom bu góor da daan jàng kon defe naa ni njàng mi kon am nañ ci cër bu baax mu doon tamit suñu bëgg-bëgg ban doonay gone daan ko woyantoo bëgg ko lool te buñ ko bëggee tamit ñun tamit ñu xiirtal ñu ci ndax mën ngaa bëgg mbir ba pare duñ la ci xiirtal bu ko defee da ngay am jafe-jafe waaye duñ koo bëgg pare ñu xiirtal ñu ci ñemeloon bi bañ ñeme waaw. waaw Serigne Cheikh Demba question yi macha allah rafet na Serigne Cheikh question yi rafet na loolu macha allah waaye ndax am nga idole boo xam ne nii buñ ko tuddee ba nga nekkee xale dangay daanu jël wala bëgg ko ba maanaam di daan fanaan ay baasam di jooy ndax moom ah, di dem di ko fekk fu ne fu muy jàng rek nga dem fa. kan moo sa idool ci jànkat yi ak kan moo la jaraloon loolu. waaw sama sama idole ci jànkat yi mooy ki nga xam ni mooy mooy El Hadj Cheikh Diop moom mooy sama idole moom laay roy ci njàng bi moom laay ci yëpp dama ko bëgg lool fépp fu muy jàngee damay dagg sama yite yëpp dem ngir cofeel gi moom ci moom te lépp rek sëñ Touba rek moo ko waral ndax man man xasida rek laa bëgg te moom day jàng xasida di ko teg ci yoon na jàng mi muy jàng. muy lakkaxawaarix jàngum mag ñi man looloo ma gën a xër ci moom waaw. waaw Serigne Cheikh euh, bu loolu jàllee maanaam ndax jàngkat yi ku ne xam na ni Cheikh Diome baay nga féeteel wax nga ko moom nga bëgg lool moo la jaraloon dem fu ne fanaan baasam ndax bu loolu jàllee jàngkat yi kan moo la ciy daaneelaat maanaam kan ngay diglu toog diglu ko attentivement kan moo la ci jàppaat daal koo xam dana la jaral nga dem toog baasam li ko commencé ci xaadim géey nag ba ci jàngkat yu ndaw yi maanaam kan la ci daal. waaw jàngkat yi moom maanaam ki nga xam ne ginnaaw see jombaay jaral na ma may may fanaan baasam man moom mën naa ne man jàngkat yëpp laa man ñëpp laa bëgg rek waaye nag see jombaay dama koo bëgg ba di ko roy waaw loolu man moom dal ci moom bëgg ba di ko roy waaye man wax dëgg yàlla jàngkat yëpp noonu man man xasaayit rek laa bëgg moom jàngal xasaayit rek yow mi sax boo doon jàngkat booy jàng damay ñëw fanaan sa baas ngir xasaayit da ngay jàng waaw ah dëgg la Serigne Cheikh ba kàddu yi rafet na lool am na solo am na maanaam macha allah ndax nee nga Cheikh Diop Baye mooy sa idole waaye jànkat yëpp man kon wax nga dëgg waaw ku man amul nag kun dimbali rek moo am kon kàddu yi rafet na lool macha allah waaye Cheikh actuellement mën noonoo xam ci lan ngay yëngu nii fi ne nii lan ngay liggéey yow. Euh, waaw man instant bi ba léegi ci wàllu imprimerie laay laay yëngu waaw ci laa jànge métier te ba léegi ci laay yëngu. waaw sama place mi ngi mi ngi Daaru Minam foofu lay yëngoo waaw Daaru Minam ci ci ci côté Kër Xaadim mu ndaw foofu laa nekk fa lay yëngoo fa lay liggéeyee waaw fa lay xëy daal. waaw beneen question bi ci des nag ñu bàyyi la nga toog jàng ñàngum aw mooy mi nga xam ni maanaam ndax jàngkat yi euh, xeexante est-ce que am na ci seen biir comme ay kii maa koy njëkk a jàng ay daam fu may dem jox ma diw jiitu la fa dama dama koy gis léeg lekk yaa ngi dégg ak maanaam ja boo jàngee ba ñëw léeg-léeg lan nga fa mën a jëlee euh, maanaam ndax euh, mi yaa ngi ci investir wala lan la la mën a jariñ wala xeexante bi gaa yi wax daal mooy ñaari question yooyu xeexante bi comme ay nga njëkk fa diw fuuf toog diw ñëw moom yow mi ko fa njëkk mu waaxu la ni day jàngi affaire yooyu xeexante ak naan man de ax ah, du ma dem programme diw ndax waxuñu ma ko ndax la fa diw nekk est yooyu yaa ngi ci wala nekkoo ci gaam yooyu yow euh, man moom wax dëgg yàlla man nekkuma nekkuma ci yooyu wax dëgg yàlla man moom njàng mi yooyu moom dundewu ma ko ko nekkuma si yooyu daal ndax man yàlla dafa dogal sax man dama am sama manager man man daanaka ñëwal jàngi laa am heure sangam ngay jàng heure sangam nga fay jugee dama am sama manager bu ñuy wax buur géwal waaw maa moom ñooy ànd toujours képp koo xam ne képp koo xam ne rek moom wax ay jàng boo ma wooyee sama numéro bopp numéro am laa lay jox di la jokkool ak moom boo jokkoo ak moom bu neexee yàlla moom moom li ma ciy am mooy seex ñëwal duggal ci oto bi demal ko jàngi kese heure sangam nga fay dem heure sangam nga fay jógee man loolu rek laa laa ci am. waaw kon dégg nañ yu baax mu mel ni euh, euh, daam boobu lañ koy wax muy ménageur muy buur géwël macha allah jàpp na sa carrière lool di bu baax. defal leen sëñ Bamba seeni tum du mu àggan param tuy lamb tuy wéy ba teggi ko